asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki daayira maam jaara yi nga xam na ñoo nekk ndakaaru dama leen di nuyu leen sant bu baax dina xamal ne li nga xam ne soxna Jaara Muntaxa mi ah noo ko waxoon mu nekkal nu ci daayira yi nekk ndakaaru yëpp ci jigéen ñi comme ni nga xam ne Cheikh Fatma itam sant naa ko mu nekk ci communication mu def ca nam war a defee lépp kon daje bii ci moom la jaar ñu waxtaan ci mu uh, woote ma xam ne itam da ngeen ko wuy si ndax ci ndigal rek la koy defee ah, li muy def lépp ci ndigal la koy defe li muy def yépp itam ci lëggéeyal sëñ Tuubaa la ci la koy defe kon nag looloo tax bu mu leen wooyee ci ngeen àndandoo liggéeyal sëñ Tuubaa itam wóor na ma ne da wuy si kon nag na ngeen xam ne lii nga xam ne moom ngeen di bëgg a def te nekk ci itam muy daayira maam jaare yi nekk ci liggéeyu maam jaare bi daje bu am solo lool ndax dana gën a soññ liggéey bi wóor na ma ne dana gën a dana feeñ itam ci liggéey bi te itam jàpp naa ne lool loolu tax sax ma gën cee bég dana leen gën a boole gën a yaatal daayira yi nga xam ne ñoo nekk Ndakaar kon nag ñoo ngi leen di xamal yéen ñëpp ne liggéey bii ngeen nekk te di ci continuer te di ko wootente ngir yéen ñëpp ngeen àndandoo liggéeyal soxna si ngeen xam ne liggéeyub sëñ Tuubaa la liggéeyub yàlla boo xam ne ni amul benn li may wax amul benn liggéey bu ko gën a nekk liggéeyub sunu borom ndax képp ku ciy nekk sëñ Tuubaa tax nga di ko sëñ Tuubaa lépp luñ ko defal yàllaa tax ñu di ko defal te la ko gën a ñor ci liggéey yi mooy alquranul karim te fee ku fa dem gis ni ngeen ko defee ndax effort ya fa nekk yépp yàlla def na ngir daayiri maam jaare yi ak ñi bëggee liggéeyal maam jaara ñoo ko fa def te ku fa dem danga gis loolu kon nag liggéeyu sëñ Touba la ku fa dem da gis ne itam réalisation bu jafee-jafee def la boo xam ne nii volonté rek ko man volonté liggéeyal yàlla volonté def ngir yàlla moo ko man ndax dara manqué yu fa te itam ñu ma leen wax ku seetlu tuuti daay gis ne génnut lenn liggéeyal sëñ Touba ca la nga xam ne moom la gën a bëgg lam gën a bëgg ku ne xam na ne mooy alxuraan kon nag foofa yaakaar naa ne yéen ñëpp xam ngeen ne lenn lu génn alxuraan ak xam-xamub alxuraan ak nu nga xam ne itam na lañuy ñuy formé ña fa nekk di jigéen tudd soxna jaara ci yoon wu nga xam ne itam danañ mën a nekk danañ danañ war a jikko yoo jikko yu soxna jaara yi nga xam ne moo tax yéen ñëpp ngeen jublu ko lépp lu ca war ca njàng ma ña ngi koy def lépp lu ca war ca la nga xam ne mooy yar ba itam ña ngi koy def ba képp ku fa dem itam da nga daal di gis fa saasa yar ba nga xam ne ña ngi ko fay def di ci gën a yéemu ku fa am doom ku ne mën nga ko daal di seetlu ne keroog ba nga fa yóbboo sa doom mu tali fa ay weer yu néew yem fa am bu dellu si waatee sa gën nga gis ni soppiku na ci yar ba yow daal di commencé melawoo melaw lislaam wa ca gën te loolu itam dañ caa boole di leen jàngal itam ko ci bëgg ëllëg ay formation yoo xam ne nii kenn ku ne dana mën a garde continuer yor sa dignité ngir fa nga nekk ngir faa mën a liggéeyal Sëñ Tuubaa gën a faa mën a liggéeyal Soxna Jaara gën faa mën a représenter Soxna Jaara kon nag bokki taalibe yi yu góor yeeg yu jigéen ñëpp daa yéen maam jaare yi ñëpp a ci ne kon nag ñoo ngi leen di gën a woo ci daje bi ngeen def ci na ngeen daan defee naka jekk jóg ngir sëñ bi bàyyi lépp ngir sëñ bi bu boobaa itam ngeen gën a xam la nga xam ne moom lañ leen mooy liggéeyal sëñ bi kon nag mboolem ñi ci nekk ñoo ngi leen di ñaan ñu gën koo yëgal seeni xarit yi nga xam ne sax bokkuñ ci daayira yi ndax liñ ci gën a jublu mooy xam le liggéey bi loolu mooy li nga xam ne itam mooy moo moo waral daje bi xam le liggéey bi gën koo yaatal ba fépp fu nga xam ne bëgg nañ daara ji àgg fa yàlla àggale ko fa pour xamal leen rek yaatuwaayub liggéey bi yaakaar ñu ci bari xam nañ ne fii ñu toll juróom juróomi téeméeri gone yu tudd soxna jaar ña nga fa te amul dara lu nga xam ne war na fa kenn lu dul jaar fa nga xam ne jaar di leen jaarale fa nga xam ne fa lañ war a jaar yàlla dogal na loolu nag kenn daara ji moo yor seen lépp amul dara lu nga xam ne dana war kenn ku nga xam ne am nga fa doom waaye loolu lépp nag li tax ñu man ko mooy yéen mooy bokki taalibe mooy daayira maam jaara yi yi nekk ci biir ak yi nekk ci bitti kon nag li tax daayira ñu xam ne itam ndakaaru moom ña fa nekk te bëgg soxna jaara te nekk ci daayira yi bari na waaye ña fa nekk te bëgg ko lool bëgg lu baax bëgg def lu baax te xamuñu ko itam ñoo ëpp fopp kon nag lii daje bii ngeen fas yéene daje le diis na nekk daje boo xam ne nii dajeb soññante lay doon daje bu gën koo xamal ñi nga xam ne xamuñu ko itam te ba mën a dugg ci liggéey bi lay doon loolu nag liggéey bi ñaari xaaj la benn bi yéen ñëpp xam ngeen ko mooy carte Maam Jaara buñ dee liggéey bi moo ko doxal ba nëgë ni carte maam jaare yi eh, xaj na nam war a tasaaroo ci ndakaaru sax tasaaroo fa waaye ma ngay dox nam ware waaye lépp rek mu yokk xam ne mooy base liggéey bi bi ci des mooy liñ tuddee parrainage bii nag mooy jàpp ne jël nga kenn ci liggéey bi koo xam ne nii da nga koy defee sa doom di di ko di ko di di di di respecté lenn la man di ko def nga di ko def te loola parrainage bi ngi tàmbalee ci ku man kenn jël ba loo man jël daayira bu ne itam bu fekkente ne man na kenn mu jël ko bu mënee ñaar mu jël ko lu man mu jël ko waaye ñu xam ne am na lu am solo lu apporté ci liggéey bi boo xam ne nii lu feeñ la Cheikh Mountakha mi nga xam ne mooy xalifa général waaye mooy jëwriñu maam jaara foofu laa leen di wax ak moom sant na lool ci liggéey bi taxawaay bi sant na ci lool kon nag ku ci ne ku ciy liggéey ku ne na nga xam ne am nga ngërëmam ndax moom moo jiite liggéey bi naka jekk ba lii fekk ko ci kon nag bi ko ci lii fekkee muy mboolem mu far wuutu sëñ Touba noonu la wuutoo Cheikh Amadou Bachir ci liggéey soxna jaaro bii nga xam ne sëñ Touba moo ko ko dénkoon kon nag bokki taalibe bokki daayira maam jaare yi nekk ndakaaru yépp ak yi nekk feneen sax da xam ne liggéey bii ngeen di liggéey liggéey sëñ tubaab bu ko ñor la liggéey benn bu ko gën a ñor amut ndax kat lu leer la ne bu fekkante ne lu mel nii teeloon nañ koo xalaat ba mu teelal law yaakaar nañ ne kon ña fa génne ak fu ñu mën di nekk milieu bañ nekk danañ koo changé ca la gën ndax loolu lañ leen yare te yàlla def ko ci ñoom kon nag da ngeen xam ne kenn ku ne kafa nekk sa doom la nga di ko toppatoo na mu waree di ko def itam ngir yàlla yàlla rek tax nga di ko def buñ nee parrainage nag xaj na am na ñuy xalaate ne eh, damay dem tànn am maam jaara def ko sama doom loolu mën naa nekk bu baax a baax waaye loolu Cheikh Mountakha nam ko xalaate eh, gënul ci liggéey bu mel nii ndax loolu dañoo xalaat ne mën naa mu daal di indi wuutee ca daara koo xam ne nii xaj na mën na ko am doomam maam jaara ma fa nekk mu di ko toppatoo noo nga xam ne keneen mënu koo toppatoo keneen ka ba tax na mën naa andi ak ak ak ak ak wu jëlee loo xam ne nii mën naa dellu siwaat ay jikko yi nga xam ne moom lañu dindi ci ñoom dikko yi ñu dindi ci ñoom mooy lan mooy jikko bëgg a def ci ñoom jikko yi soxna jaara mooy lépp lu nga xam ne luy tuutal nit li ci jikko dindi ko ci ñoom def ci ñoom jikko yi soxna jaara yi nga xam ne mooy gën ji jikko loolu nag mën naa indiwaat ay rivalité mën naa indi ay jalousie looloo tax ni ko alxuraan ne dundal kenn mi ngi mel ne dundal nga mbooloo kon nag dangay jàpp ne bokk nga ci ñi dundal maam jaara yi ba def ca loolu mel ne kon yow mi nga xam ne eh, am na maam jaara wala ñaari maam jaara wala ñetti ñoo jël mi ngi mel ne kon jël nga daara jépp loolu moo ëpp njëriñ moo ëpp solo moo ëpp bu yool ndax sunu borom ci boppam moo wax ne ku dundal kenn mel ne nga dundal ñëpp. ma ne nga dundal ngay dundal ngay kon nag kon nag loola dangay daal di am yoolub ka ko def ak yoolub ña des kon loolu mooy li tax xaj na jamono ji mënoon nañ koo mënoon na kenn ku ne mën a identifier sa maam jaara waaye loolu lañ ci ragal mu mën a andi eh, ak ak ak ak ak jalousie ci seen biir ak ñeante te jikko yu mel noonu lañ bëgg a dindi ci ñoom def ci ñoom jikko yi àndandoo jikkoy solidarité jikkoy yi nga xam ne mooy jikko yi gën yi nga xam ne moom lañ xamee woon ci soxna jaara kon nag loolu moo tax eh, ku nga xam ne yaa ngi ci yaa ngi bëgg a na itam nga jàpp ne noonu la parrainé naa maam jaara mu dugg ci liggéey bi noonu la ko ñëpp yi defee noonu la amee ëppee efficacité noonu la ëppee njariñ ci liggéey bi waaye lu ma di xew maa ngi ciy soññ ñëpp xam ne am na fa njariñ lool tax na daara ji gën a yaatu tax na ñu gën koo yaatal tax na ña fa nekk gën a gën a gën a bari te day gën di bari ndax euh, liggéey boobu ñu baree bari jublu nañ ko ñi ko xam te man ko kon nag ku ko man rek la ku ko mënut itam nga def la nga man loolu mooy li am solo ku ko mënut nga def lu maanaam bu dee daayira ña ca nekk seet présidente daayira ba seet ñaata xaj na bu ñu dajee woon ñaati maam jaare la ñu mën a pare parrainer ñu xam ne kon daayira bi moo pare la nangam kenn ko ca bokk te mën a def itam pare di waat créé itam dara nekk ci lu baax moom eh, eh, day day loo ca man rek def ko mooy di ëpp jariñ kon nag te itam na ñëpp xam ne seen liggéey bi ngeen di def ngir yàlla yàlla rek tax moom rek kay des nag liggéey leneen amut luy des lu la nit kiy def ngir yàlla lépp lu waay def ngir te yàlla taxul te amut benn njëriñ kon nag. da ngeen xam ne lii ngeen di defal liggéey sëñ Touba te yàlla rekk tax loolu ci ëllëg ca la gën a bari lu ëpp solo ci la ngeen di xam ne da ngeen ko fekk dañ leen ko faye lool lay bokk te loolu moo am solo ndax loolu day ñëw kon nag fàggu ko am na ci njëriñ loolu bokki taalibe yu jigéen ñi bokki taalibe yu góor yi ñu nekk nga xam ne ñoo nekk ci daayira maam rawat na ci ñi nga xam ne ñoom la soxna jaar mii woo soxna Jaaratullah Muntaqa euh, ci suñ bëgg-bëgg ci bëgg-bëggu baayam kon nag na ngeen ko wuy si ñoom ñëpp nañ ñëw bu ñëwee itam loola continuer ngeen di man di daje gën a mën a àndandoo ci liggéey bi ndax ab liggéey lu ca mbooloo ma gën a ànd rek loolu mu ëpp njariñ waaw kon nag la kenn man dañ koy wax toujours wolof da koy wax lu kenn man ñaar la ko dàq kon nag daay rëy ñoo man kenn ko doon liggéey buñ àndandoo yi itam ñooy man ñeneen yeneen daayira yu àndandoowut kon nag àndandoo gi dafa am solo surtout àndandoo ci lu baax ndax da ngay am la nga def ci lu baax amat ci yoolum mbooloom nga xam ne kon àndandoo def lu baax rek mooy li am njëriñ kon nag na ko kenn ku ne yëge noonu kenn ku ne itam woote ko rawat na ci daayira yi gën koo yëgal ñi nga xam ne xam nañ leen ñu bëgg lu baax te xamuñu ko ba nga xam ne bis baa ñoom ñëpp ñoo ñëw ba gën cee mën a dégg gën cee mën a xamee li tax ñuy def gën cee mën a tax li tax ñuy daje mbokki taalibe yi soxna yu tedd yi kon noo leen ciy gën a woo ngeen ànd ak soxna jaara bi ci liggéey bi liggéeyal soxna jaara te yàlla rekk tax jërëjëf def noo ngi sant bu baax a baax a baax kon nag ba bis ba ak jàmm incha allah na yàlla ak sileel ak jàmm eh, te ñëpp déggee ko noonu ñëpp ñëwee noonu te yàlla rek tax beneen tànk bañ a tax lii nag ku ci def ku nekk xam naa ne yàlla rek tax mooy tax waaye na ngeen xam ne benn defal yàlla bu ëpp solo ku ku nekk ci alquran nekk ci yarub alquran nekk ci yarub maam jaara nga di ko ci dimbale googu defal yàlla genn gu ko ëpp solo amut kon nag ci loolu lañ leen di woo jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah